إن الله مع الصابرين على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen balu di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di ñaan suñu boroom subhaanahu wa mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla di ko ñaan mu ñu suñuy bàkkaar di ko ñaan mu sàmm sàmmal suñuy kilifa di ko ñaan mu yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahu llahu taala wa ayyadahu wa nasara ñu del siwaat rek ci fàttalente lu am al mooy texe te mooy mucc ci lépp loo xam ne lu la mën a tiitloo la wala lu la mën a jàqaloo ëllëg yowmal qiyaamati nga mucc ca loolu mooy li julli yi di xëntawoo te loolu suñ borom subhanahu wa taala dañoo wax ne mënees na koo ame ci ak njub wala ak njub moo koy maye ndax mucc texe mucc ak texe mooy li am solo te jullit yépp di ko wut suñ boroom wax ñu ne dangeen ko amee ci ak njub yàlla wax ne inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaaikatu allaa taxaafu wala taxzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba noppi sax ci ak njub bala ñoo faatu yàlla dana yabal ay malaaka yu leen di dalal di dalal seen xel ci ne bu leen ragal dara ci li ci seen kanam bu leen jàq ci li ngeen di bàyyi ginnaaw na ngeen bég ci àjjana ji nga xam ne moom la leen suñu boroom dël kon njub day musal nit ki waaye day tax aw xeet nekk ci ay xéewal nekk ci jàmm nekk ci naataange te loola suñ boroom moo wax ne wa allaw istaqaamu ala tariqati la asqay fàttali soññ suñu bopp ci ak njub di fàttali wàccuwaay wi nga xam ne am na ko ak lii tax liy dimbali nit ki ci mu mën a sax ci ak njub loolu lu mat di fàttali la istiqaama te moo di njub buñ ko waxee rek mooy aw ci yoon wi suñu boroom subhanahu wa taala rëdd te mooy yoon wu jub bi te mooy diineem ji li ci digle ak limu ci tere nit ki di sàmmoonteeg loola bañ a jàdd càmmooñ bañ a jàdd ndeyjoor waaye it la muy def mu bañ caa teengal waaye bañ caa gàttañlu mu def kon loolu bu ñu bëggoon koo tënk kon moo di ne rekk topp suñu boroom subhaanahu wa taala ci lu nëbbu ak lu feeñ waaye moytu ay tereem la ci nit ki gëm yàlla subhaanahu wa taala ngëm gu gëm melokaan yi nga xam ne moom la yàlla melal boppam nga di ko bàyyi xel waxtu wu nekk jullit bi waxtu wu nekk da ko war di teewal di ko bàyyi xel mooy suñ boroom kuy dégg la kuy gis la kuy xam lépp loo xam ne nit ki ma nga ca moo xam lu muy xalaat la jëf la moo xam lu muy wax la loole mooy njëlbeenu ak njub ginnaaw boo gëmee ba noppi nga sax ci jaamu yàlla ci niko ko bi sallallahu alayhi wa sallam diglee moom it bañ caa ëppal bañ caa yéesal ndax dañuy wax ne jëf ju baax jëf ju jub jëf ju rafet mooy joo xam ne ñaar yi daje nañ ca mooy nit ki bi mu koy def da koy sellal yàlla rekk tax waaye bu koy def it dakoy defee nañ ko ko digale nañ ko santaane moo tax ñuy firi li suñ boroom di wax ne alladi xalaqa al mawta wal xayaata li yabluwakum ayukum ahsanu amala suñ boroom dafa bind dund bind dee ngir nattu leen ana kan moo ciy gën a rafet la jëf ñu wax ne kon jëf ji rafet mooy ji nga xam ne mooy ji sell waaye mooy ji jub mooy ji nga xam ne ki koy def da caa sàmmonteeg niñ ko ko digale kon bokk na ci ak njubit mooy booy topp yàlla yit nga jiital li suñ borom subhanahu wa taala jiital te mooy lim farataal ci yow nga jiital ko di ko bàyyi xel teg ci li nga xam ne ay naafila la di ay coobarewu yoo xam ne mooy sàmm farata yi la cay manki moo koy mottali akbar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 sunu jiitu ci yoonu njub mooy li yàlla farataal nga góorlu ca waaye limu mu sunnaal it nga góorgóorlu ca góorgóorlu ci naafile yi nga xam ne suñ boroom sama jaam amul lu may jaamoo lu ma gënal li farataal ci moom maa taqarraba ilaya abdun bi abdi bi cheyin ahaba rabtuhu aley waaye da caa ma sopp ko te bu ma ko soppee maay doon ab déggam maay ak déggam maay doon ab gisam maay doon loxoom ni mu ko waxee ci alxadiisul qudsi mu ne sama jaam te lu ma ma may ko ko lu muslu ci man ma musal ko ci listixaama kon doon lu lool wàccuwaay suñu borom subhanahu wa taala soññee ci digle ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir julli gi ndax ihdina siraatal mustaqima ci faatixa yi nga xam ne kuy julli di ko tare ay yoon kon loolu day tegtale rek ne lu am solo la li jullit bi war waay xel di ko ñaan waaye di ci góorgóorlu te ba maak wala tadgaw innahu bima taamaluuna basir am na xadis boo xam ne sidna Abubakar dafa mos a laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow de yaa ngi tàmbalee bi jaaw mu ne ko shayyabat nii huudun wa axawaatuha maanaam saaru huud moo ma bi jaawloo ak ay mbokkam mu ak alxaq ak yu mel am na yi bu ko gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw lu la bi jaawloo ndax tiitaange yi ci nekk ak tëkku yi nekk ak alak yi nga xam alakaande yi nga xam ne yàlla alak na ko xeet yi jiitu woon mu ne ko li yàlla wax ne fastaqim kama umirt kon loola day tegtale ne istiqaama lu mat di bàyyi xel la lu mat di góorgóorlu la am na ku mos laaj yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko wax ma ci lislaam wax joo xam ne duma ko laaj keneen ku dul yow mu ne ko qul amantu billahi suma staqim waxal ne gëm naa yàlla te nga jub sax ci ak njub yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon nañu ne istaqimu walan tuxsu na ngeen sax ci ak njub la leen ci yàlla yi defal ci ay tuyaaba du ngeen ko mën a lim du ngeen ko mën a takk kon nag góorgóorlu ci ak njub di ko ñaan suñu boroom di ca góorlu lu jaadu la waaye di ci bësanteeg sa bakkan di nootanteeg sa bakkan ndax nit ki bakkanam léeg-léeg moo koy wàcciloo moo koy jàddloo moo koy tax a sàggan ca la nga xam ne ca la war a sax te muy lañ ko digal kon waxtu wu nekk ngay bàyyi xel sa bakkan bañ koo topp loolu dana dimbali nit ki ci mo amul jub waaye nag di xool ci nit ñu baax ñi di xool ci roy ci gaa yu baax yi roy ci ñi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi roy ci sëriñ bi ak mag ñi nga xam ne ñoom la yaroon nga xam ne seenug dund lépp day fàttaliku la lu mag di waxtaane la ngir ñu mën leen di roy ak di tànn ñi ngay àndal xool bu baax ndax àndandoo it dafa mën a jeexital ci nit ci bu dee ku jub la kuy ànd ak moom mën ngaa jub waaye nag kuy ànd ak ku juba it li ku xool njàngalim sëriñ bi akub yaram dangay xam ne moom la jiitaloon daan ci soññee lool ci ay mbindam waaye ku gis ab yaram xam ne ñim yar ñëpp ci ak njub la leen yar mooy di jaamu yàlla di moytu ay di ay ndigalam di moytu ay tereem bañ a ëppal bañ a yéesal te moo waxoon ne walaata wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita bul ëppal bul saggan na nga sax dàkk ci ak njub jaar ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa te maandu waxoon na ne it karaama li yaatu yaatu limuy bari bari karaama gën a gën a kawe mooy ak njub kon ak baax ak karaama nee na dayoo ba moo di njub moo di njub fa axbaru bi anna al istiqaama nihaayatu salaaxi wal karaama boo demee ci ay mbindam ci majmuwa bi fu baree bari mi ngi leeral siraat as siraatul mustaqim di wax ne siraatul mustaqim boobu bëggee xam mooy jaar ci sax ci lislaam ak liimaan ak lixsaan di bàyyi xel yi nga xam ne mooy yi war ak yi ñu sopp ak yi daggante baax ak xam-xam bu am njariñ jëf ju baax ak teggin yu ñu gërëm ak jikko yu rafet ak mbañu rus te jëf lu jëf li nga xam ne dafa war ak yi ñu sopp ak yi dagan ca baax day ñod di nit ki di ko jëmale ci istiqaama loolu moo ko wax ci majmuwa bokk na ci melokaan yi nga xam ne day yóbbu murit bi di ko jegal suñu borom subhanahu wa mooy moom it jub bañ a ëppal bañ a yéesal ba muy lim jikko yooyee wax ne wal xaamisul amalu bil iqsaati bi tarki tafritin ma al ifraati kon ak njub lu am solo la lu mat di góor loolu di bàyyi di ko bàyyi xel waxtu nekk xool li la yàlla digal sa digganteeg moom waaye lim la digal sa digganteek sa njaboot lim la digal sa digganteeg say dëkkandoo foo nekk rekk bàyyi xel njub googu yàlla na ko yàlla defal ñu saxal ñu ci ak njub xutba bi nga xam ne moom la imaam war a xutba léegi mu tàmbulee ko ci sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yéen nit ñi ki am xel mooy ki nga xam ne li ko yitteel mooy li boroomam bëgg li boroomam namm moom lay jiital ci bëgg-bëggi boppam ak nammeeli boppam ki am xel mooy ki nga xam ne dafa sax ci topp yàlla waaye taqoo li nga xam ne moom la ko moom la suñ boroom dénkaane dénk ko jaamam yépp te mooy ragal yàlla wa laqad wasayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah kon na ngeen jël ak ragal yàlla def ko muy yoon wi ngeen di def ko muy li ngeen di yaxantoo na ngeen di jëfal bis bi nga xam ne lépp lu waay def ci lu baax danañ ko ko teewalal ragal yàlla mooy yaxantukaayu ñi nar a texe ëllëg ñëpp ñi nga xam ne dañoo jege seen boroom la ëpp solo ca lañuy wut mooy ragal yàlla googu nee na képp képp koo xam ne képp yàlla kooku it bokk na ci ñi ci ëllëg kon nañ fexe ba suñuy bakkan ñu sàmm ko bañ koo bàyyi ci loxo yi seytaane ak bànneex ñi nga xam ne ñoom dañ koy jiital dañ koy tëj rek nañu tuub jëm ci suñu borom subhanahu wa taala ba moo xam gu ndaw la moo xam gu mag la ndax kat lépp loo xam ne nit ki def na ko danañ ko ko bindal wa kullu cheyin faaluhu fi zuburi wa kullu sagirin wa kabirin mustatar ci xutbam ñaareel bi ginnaaw bi muy sante yàlla seede ne amul benn buur bu dul yàlla dafa wax ne yéen jaam yàlla yi nangeen góor góorlu ci dundal seen ëllëg nga xam ne faw mu ñëw te na ngeen jiital seen ëllëg ci tey ndax àdduna bii kat kenn du fi sax na ngeen jëflante ci ak maandu ak ku rafetal na ngeen mooy saytaane ak bànneex ndax seytaane da leen di woo jëme leen ci sawara seen bànneex moom da di ñor rek jëme leen ci ak doyadi na ngeen bàyyi xel suñu boroom mi nga xam ne mi ngi foog mi ngi fuglu ñëpp ñi koy topp ak ñi koy moy na ngeen takkook ragal yàlla ni ko yàlla digale jaamam yi te dénk ci dénkaane ko ya ayuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum dunubakum wa man yutic allaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima kon ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu saxal ñu ci ak njub di ko ñaan mu yërëm ñu ci yërmandeem yaatu ya di ko ñaan mu bañ ñoo jàppee suñuy jëf te jëf jëflanteeg ñun ci yërmandeem yàlla yàlla ñu jéggal te yërëm nu yërëm mbooleem jullit yi yàlla suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sàmm suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadou Mountakha te yàggal ko fi defal ko ku ak mbooleem njabootu sëriñ bi ak mbooleem jullit ñi nga xam ne dañuy sax ci lu baax. wasalaamualeykum wa rahmatullah